أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki Ziguinchor ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di baalu àq di leen baalu àq di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal nañ yàlla boole jéggal ñëw nañ jóge Dakar fekk si leen fi ci tool bi nga xam ne moom mooy toolu lislaam bëgg jàppalante ak yéen ci liggéey bi nga xam ne moom mooy liggéeyu yàlla subhanahu wa taala te moom mooy liggéeyu lislaam am loo xam ne bëgg nañ ko fàttalante ak yéen jàngalante ko ak yéen donte ne xam nañ ne mi ngi fi nit ñi mën nañ ko ñu ngi koy def waaye du tere nit lu mu mën loolu lañ koy fàttali ndax borom bi subhanahu wa taala moo wax ci alquran fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin na ngeen di fàttali ndax fàttali day jëriñ jullit am benn tomb ci sunu tomb diine bu tudd ahkaamul janaiz attey néew ku génn àdduna naka lañ koy waajalee préparer ko ba yóbbu ko jébbal ko boroomam mu nekk tomb boo xam ne yenent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko jàngale moo ko leeral depuis bi ko yàlla yónnee mu jàngal julit yi su nit ganee àdduna naka lañ koy teeroo tudd ko su nit génnee àdduna naka lañ koy waajalee yóbbu ko ku ganee àdduna dañ lay teeru teral la ci tudd waaye ku génn àdduna moom dan lay waajal yóbbu la waaye ñaar yëpp suñu yonentu muhammad alayhi salaatu wasalaam jàngal nañu màndarga yi koo xam ne sax dafa nekk ci waaj di waaja wuyu ji boroomam suñ ci tollee di ko gis di ko xam ku mel noonu naka lañ ko waaja naka lan lan war a def ci barab bi mu nekk ku mel noonu naka ak lan lan war a def ci barab bi mu nekk barab boobu lan lan fa bëgg ñi fekke waa ji di waaj a génn àdduna ana lan lan war a wax su waa ji génnee àdduna ñi ko fekke lan lan ko war a def lan lan ko war a waxal lan lan ko war a defal ba buñ koy yóbbu ci morgue bi suñ ko fa fekkee naka lañ koy tërale naka la ñuy defaraatee yaram bi naka la ñuy wàcce bët yi naka la ñuy war a ubbee gémmiñ gi naka la ñuy defaree loxo yeeg tànk yi waaye suñu woowee mbokk yëpp ñu ñëw kooku noonu ana naka lañ ko war a waajalee yóbbul ko boroomam loolu mooy lenn ci lu ñu war a wone fii léegi léegi ci kanam insha allah su fekkee mbokk yi ñëw nañ naka la ñuy waar a waaj a préparer waa jooju daal di koy yóbbu ci boroomam waaye mbokk jullit yi loolu dafa laaj préparation bépp tukki bu nit di tukki dana laaj mu préparer ko rawatina tukki boo xam ne nit dafa war a jóge àdduna dem àllaaxira tukki boo xam ne su demee dootul ñëwaat kenn ci ñun fii ci àddina tey kenn ci ñun fii fi ñu nekk ci àdduna du tukki lu dul mu préparé ko kon su fekkente ne nit ci tukki àdduna yii rek jóge fii dem Dakar wala jóge Dakar ñëw fii wala jóge fii tukki dem beneen dëkk fa nga préparé loo yor sa poos fa ngay préparé loo yor alal fa ngay préparé ay bagage rawatina nag nga jóge àdduna jëm àllaaxira te dootoo dellusiwaat muy voyage boo xam ne sans retour izan ibadallah yajibu an nantabiha laha loolu war na kon ñun ñëpp ñu bàyyi loolu xel ñu xalaat ci waaye ñu waaru ci mbokk yi loolu loolu laa wax war nañ cee xalaat war nañ cee bàyyi xel war nañ cee waaru bu ñu gëstoo tuuti xool danañu laaj benn laaj ñu ne ayna allazina jamaul amwaala ana ñi jiitu woon démb ci barab yii ana ñi dikka woon kër yii ana ñi occupé woon place yi di ngeen fekk lu ëpp ci ñoom génn nañ àdduna waaye lañ doon dajale ci alal jëriñu leen ndax seen alal yooyu terewu leen a dee alal yooyu terewu leen a feebar alal yooyu terewul ñu yóbbu leen ba ci bàmmeel yi gas ba mu xóot suul leen kon alal lan lay jëriñ bu feebar ñëwee yàlla di la ko teg munoo ci dara su dee ñëwee munoo ci dara amma kulluhum fi lquburi qad jumiu ñoom ñëpp yàlla subhanahu wa taala jël na leen dajale leen ca bàmmeel ya su ko defee ñu bàyyi xel
asalaamaaleykum mbokk yi waa Sénégal. wasalaam.
jazakumullahu xayran kon da ngeen seex bi li mu wax loolu yëpp dafay wane tumaranke diine ndax jullit bu faatu cib quartier cib koñ cib dëkk moo xam góor la wala jigéen ñuy wëri ñan ñoo ko war a defar te mu dëkk ak ay jullit mu nekk ak ay jullit waaye foog ñu wëri ñan ñoo koy defar loolu yëpp dafa bokk tey ci tumaranke diine ci ñàkk a toppatoo diine comme nu mu ko waxee léegi kon ñoo ngi ñaan mbokk yi rawatina mbokk yi jigéen yi ñi ñëw gën a génn ñëw toog fekke mbir mi démb heure bi ci neema 2 lu tolloog téeméeri jigéen dajaloo nañ fa ñu jàngal leen ko bi ñu fa jógee diggante 6 heures ak 7 heures diggante takkusaan 5 heures ak 7 heures dem nañ aslam neema lu tolloog jigéen ñu toll noonu aussi ci biir jumaa ji jàngal nañ leen loolu loolu moo tax tey aussi ñu ñëw fii ci wone pratique parce que xëy na yenn saa yi nit jàng wala mu toog ñu naan ko bu nit génnee àdduna nangam ngay def nangam ngay def nangam ngay def waaye lii moom dan lay won sa bët ngay gis parce que doomu aadama mooy tëdd ñu won la naka lañ koy defaree ci bi mu faatoo balaa ñu koy sang ba suñ koy sang ba buñ ko sangee ba pare nuñ koy sangee ba loolu yépp mat loolu jàpp naa ne jullit bu ñu wax ne ñëwal nga xool li ndax nga mën ko ndax yow ëllëg ak si biir mbir moomu ngay xool da nga koy aajowoo parce que da ngay dund da ngay dund ak jabar di dund ak i doom di dund ak i mbokk ay mag ak i rakk ay àndandoo ki dëkkandoo te loolu lu jaadu la pour ku ci dee ñu defal ko ko lu jëkkër di defal jabar la lu jabar di defal jëkkër lu baay di defal doom lu doom di defal baay lu mag di defal rakk lu rakk di defal mag lu mbokk di defal mbokkam lu dëkkandoo di defal dëkkandoom kon loolu lu kenn warta woo kenn la ndax kenn ku nekk ci ñun fii toog bu dee góor nga bisa ngi ñëw di nga ko aajowoo soo ko mënulee di nga wax dem leen ngeen utali ma ku ko def même buñ koy fay ma fay ko bu doon jigéen la it bis boo ko aajowoowee te amuñu ku ko def di nga wax ne dem leen ngeen wëri ku ko def bu laajee ñu fay ko ñu fay ko rawatina nag fekkee ne ñun ñëpp mën nañ ko kon dootul laaj xaar comme ni ko cheikh bi waxee léegi ne ku faatu ci koñ bi nekk jigéen foog ñu dem ba ay bukot di fa wëri jigéen buy sang néew bi ñu jógee Sédhiou barki démb kese la dégg nañ fa xabaar boo xam ne jigéen faatu na fa ñu toog suba ba ngoon di ut ku ko sang amuñu ko ba mujj gi ni jotaay bi yàggee ñu xalaat ne waaw teeñ koo tiimal comme amuñu jigéen bu ko sangu teeñ koo tiimal yóbbu ko ci la am ko jël otoom daw ba ci ginnaaw dëkk ya ci àll ba indi fa benn jigéen ñu sangoo am na oustaz bu ma nettali moom tamit doomam génn na àdduna amul ku ko sang moom tamit moom moo volontaire sangu ko te doomam boobu jigéen la xam ngeen loolu yépp ci tumaranke diine la incha allah léegi ci ñaari minute am na sunu benn mbokk démb ba léegi moom mooy volontaire di ñuy wane ci moom naka la ñuy préparer ku faatu balaa loolu dinañ leen wan ay bagages yoo xamante ne kii sang néew moom lay aajowoo ci ay xeetu ndox ay xeetu paan wala ay siwo yu ñu mu war a am balaa muy sang néew siwo yooyu yan xeetu ndox la ciy def bagage yooyu mu war a yor yaata bagage la war a toll ban lim la war a toll ndax loolu am na lu ci war a manqué wala am na lu ci warul manqué wala lu ci manqué lan lañ koy remplacer suñ koy sang naka lañ koy sangee ban boor lañ war a tàmbalee fan lañ war a mujjee suñ koy wëlbati nan lañ koy wëlbatee suñ koy dugal ci biir mela malikaan bi wala perkaal bi naka lañ ko ciy dugalee naka lañ koy takkee takkkaay yooyu ñuy takk néew bi ñaata la dinañ leen won wala ñu jàngal leen même bu fekkente ne ku faatu ki dafa faatu ci accident yàlla tere wala mu dee ci lakk wala fenn ci yaram bi am lu ci gaañu ba foofu ndox munu faa dem wala bu fekkee ci bopp bi la wala fenn la ci yaram bi ñi koy sang wala ki koy sang naka la war a def ba passé barab boobu nga xam ne ndox waru faalaal loolu yëpp incha allah bu nu commencé ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala dinañ leen ko won ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala loolu lépp ñun ak yéen ñëpp yal nañ ko yàlla nangul incha allah kon dinaa bàyyi cheikh bi euh, mu jóg def démonstration bi ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh naa ngi ñaan su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xewal ak mu ci ginnaaw loolu mbokk yi ñu ne nuyu nuyu lislaam muy jàmm yàlla ak yërmandem ak barkeem yal na ko yàlla wàcce ci ñun ñu ngi nuyu waa dëkk bi yépp jiital ci imaamu jàkk ji nga xam ne tey jàkk ji yépp boo nuyoo imaam nuyu nga ñëpp quartier bi yépp boo nuyoo chef de quartier nuyu nga ñëpp kër gi boo nuyoo borom kër gi nuyu nga ñëpp kon ñoo ngi jiital ci nuyoo bi imaamu jàkk ji teg ci chef de quartier yi teg ci borom kër yi yaay yi moom daanaka ñoom ku leen nuyu itam ñoo jiitu ci nuyoo bi kon ni ko mbokk mi waxee dañ koy tënk mu gaaw xam ngeen ne doomu aadama moom fekk mu ngi am dee dana am kooku moom jarul sax ñu naxante ak waxtaan dee moom munta ñàkk fekk nit a ngi am ni ñuy amee ngént di kontaan noonu la ñu amee dëj bu métti nag lool ndax ku ne dee méttiwut rek da ngaa deelewut waaw ku ne dee méttiwut da ngaa deelewut rawatina koo bëgg daa demut fekkee koo bëgg bu demee waaw mën nañu to yéen xoolal da ngeen teg siis ngeen toog ci baay basan ndax ci digg bi lañ ko def ah see seesi nañ jege si seesi ngeen leen di jege si voilà ya waaw dama ko bind mu jege ndax mu gis wala. ah waaw kon nag loolu waaw waaw waaw dinañ ko soxla.
kon léegi dañuy nettali comme ni ko mbokk mi waxee nit bu fekkee mu ngi feebar tëdd xam ngeen ne dee bu njëkk xamuñ ko woon lu dul ne kuy dee da ngay feebar bu njëkk moom lañ xamoon ci ku dee dana jaar ci feebar dee am na jamono melut ni mu mel léegi boo déggee ku dee tey bala nga koy déggaat daan na yàgg lool waaye léegi ci li ñuy ndékki beneen baa ngi nii daanaka boo ndékkee dégg ku dee léegi-léeg sa nit nuyu la nga dem teg lekk balaa ngaa pare ñëw ne la ki la nuyoo léegi dee na wala diw nelaw na yeewut kon loolu beneen mbir la waaye lañ ci mën a xam kiñ mën a dimbale mooy kiñ yëg ni mu ngi feebar te fa muy mujjee mooy génn àdduna buñ ko xamee dañ koy dimbale maanaam sa mbokk bu feebaroon ba sonn war a génn àdduna dañoo bëgg ñu dimbale ko ci da ko wax loo laa ilaha illa allah su yàlla dimbalee mu mën a wax laa ilaha illa allah léegi su boobaa dañuy xam ne am na sens dootuñ ko wax loo leneen jëla seet bi joxe léegi su ko defee ñu xaar bu waxaatul dara bu génne àdduna ci noonu am nañ ci moom yaakaar comme ni ko yonent bi waxee man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illa allah daqalal janna ki yàlla yónni mu ne koo xam ne ba ngay génn àdduna li nga mujj wax mooy laa ilaha illallah nee na ajana nga jëm yàlla nañu ko yàlla defal defal leen ko léegi nag boo yégee ne jëmm ji génn àdduna am na looy def balaa loolu bu fekkee wax nga loolu mu waxaat leneen su boobaa nga góor góorluwaat saxaat ko baatu seede yi ba mu wax ko lu mel ni laa ilaha illallah wala ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah su ko waxee rek noppil léegi-léegi itam nga wax ku nit ne ko waxal mu ne waxuma bul tey continuat ndax dee dafa métti inna lil mawt la sakaraat la yonent bi wax ki yàlla yónnent ñun mooy génn aduna léegi-léegi ngeen dégg mu ne laa ilaha illa allah inna lil mawti la sakaraat seede naa ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla waaye maa ngi wax ne dee métti la dee lu métti la kon dee bu ñuy xaar la du mën a ñàkk utal ñu benn njàmpe njàmpe njàmpe
jàmpe
même bu ñuy sangoo dañu ko abal rek bu wóor.
jàmpe kenn du ko sàngoo daan dañuy wone rek jàmpe comme jàmpe rek léegi yéen ñu fi jege su faatoo li nga war a njëkk a def bu fekkee génn aduna mooy nga ne bismillah nga teg même bu yaawee ak yaa fu asen fuuta
li nga war a njëkk a def boo yégee ni jëmm ji génn na aduna mooy nga ne bismillah jël sa loxo teg ko ci kaw jëbi nga raay mu wàcc ba di gëmm ndax nit bu génne aduna day xool bu baax dootul mën a xëf ba di dem ci kaw léegi nag pour nga dimbale ko yow ba koy njëkk a dimbale mooy nga wax bismillah teg sa loxo ci ba di raay mu wàcc mu gëmm muy benn ñaareel bi nga jël musóor jaarale ko ci ron sikkim bi mu ñëw ci bopp bi nga xëcc sa ko takk ko ngir bañ mu ŋaang ñetteel bi nga xool loxo yeeg tànk yi bu fekkee normalut nga tàllal loxo yi takk ko tàllal tànk yi takk ko juróomeel bi nga jël lu diis lu mel ni ñetti kilo suuf takk ci benn morso teg ko ci biir bi ngir bañ biir bi jël ngelaw juróom benn bi nga jël darab wala morso bu diis sagar bu maanaam sër bu diis nga sàng yaram bi yépp door a génn nag ci biti jàll xibaar bi ne diw génn na àdduna booba itam ak luñ bëgg-bëgg jëmma jooju bëgg nañ ko ko dégg ku ne nga ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ñëpp ñu ngi bayee ko ci yàlla te ñun ñëpp ci yàlla la ñuy dellu léegi nag soxlawuñ ko ko dégg naan way man fu ma jëm di yuuxu comme niñ ko xamee yonent bi ne bu nit faatoo ngeen di ko yuuxu di daanu di yuuxu dañuy tàngal ndox mu tàng ñu sotti ko ci koom ne ko kii moo la ko yónnee diw kon ndeke nit bu génnee àdduna métti na ci xol yi waaye dañuy muñ ndonte ronga yaa ngi tuur làmmiñ bi du wax lu bon la ilaha illa allah inna lillahi wa inna mën nga wax yi mel noonu waaye wooy muñ fuñ jëm way yaayoo na te bu ngeen ko seetloo jigéen ñi jooy di gën a jooy ñooy tànn ceeb bi lijjanti soble beeg lu ñu añi léegi ñu noppi kon wax dëgg yàlla loolu moom lislaam gërëmut ko léegi nag bu ñu boo jëmm ji ci biir morgue bi ñu woo sangkat bi kan mooy sang néew jigéen ju noppi góor gu noppi nga xam ne lu mu gis ci néew bi du ko wax mu ne itam ku am diine koo xam ne du fooyee jaamu yàlla jigéen joo xam ne fecc mooy métiem kooku du sang suñu néew góor goo xam ne fecc mooy métiem wala tëgg wala suyeekatu péemi yu mel noonu du sang suñu néew su ko defee li ci gën a baax nag mooy mbokku néew bi am ñu mën a sang ñu sang ko xam nga góor gi wax na ko fi léegi su fekkee mënoo sang néew buñ la kaay nga ne mënuma donc ko yëru sa wax looy wax ii man kay ñemuma sang néew da nga koo mënut moo tax du ragal de da nga koo mënut kon loolu mooy li ci njëkk léegi nag buñ la ne dañoo bëgg na nga sangal ñu suñu néew wala nga am koo war a sang da nga ut juróom-ñeenti mbir da nga préparé juróom-ñeenti mbir Antara. Tafakka.
waaw dañ ko bëgg dañ ko bëgg wane danañu wane juróom-ñeenti mbir yoo xam ne kii sanga néew bi day laaj ñu indil ko ko ngir lan yooyu ñooy bagage yi ñuy sangee njàmp bi lay xaar
Kii amul place.
léegi loolu liñ ci mën a am mooy ñu wane bagage yi mu soxla dana am juróom-ñeenti bagage yu mu soxla Dam fee ñëw.
ak ñetti ndox yëf segut nañu léegi nañu xool juróom-ñeenti mbir yi ñuy soxla oustaz ñu déglu bi si njëkk mooy dana danañ ko jë- dana wax waa ji ne ko jëndal càngaay càngaay am na ñuy jënd perekaal am na ñuy jënd mëlikaan ay mëlikaan moo gën a baax am na mu rab- am na tarjamatu ma nga ne
Daa xattaaju. Ok.